salaamaaleykum salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw nuyu naa ñëpp taw ba cat cat ba cat ñaan yàlla senegal yàlla nañu yàlla defal jàmm tey nag sama xol dafa naqari trop ndax ma joor ak joor tey jooy naa ci jooy naa ci trop ndax lii njiiñ bon moom musta am naat naat képp kuy yaay rek tey sa xol yëngatu na te lii nii lu am la ndax dangay gis ku la def lu metti ba pare toog di la reetaan naar mii naar ku bon la naar ku bon la série bi daal bëri na lu muy jàngale bëri na lu muy jàngale man tey dama jooy jooy naa ci trop ndax nit nekk ci ay tolof tolof nekk ci ay jafe-jafe yu metti te benn doomu aadama def ko ko kon ñun war nañoo seetaat suñu bopp xoolaat suñu comportement def nit lu metti def ko jëfu soxor yoo xam ne nii ci àddunaam du ko fàtt jaxase àddunaam wala nga liggéey nit mu dof wala nga teg ko méttit boo xam ne ci lay jaare dof xam nga ne lii tey métti na métti na te lu am la ndax am na ñoo xam ne dañuy jàpp nit def lu méttee méttee métti loo xam ne sa àdduna moo koy yàq mooy li maajoor ak joor dëgg yàlla am tey moom bu am solo la waaye jooyloo ñu bari ndax lii nii mu def lii nii ñu joué dafa am dafa am bu dul ci méthode bi am na yeneen méthode yoo xam ne nii moom la nit ñi def muy lu bon muy ci wàllu liggéey liggéey li ba sa yaram doo mën dara wala mu ñu ñu ñu ñu dëddale la nga am mettit boo xam ne danga koy dund yàlla boo sëy ba jaboot fenn affaire bi daal tey ñu bari gis nañ sëy man jooy naa trop jooy naa série bi neex na macha allah macha allah laf cat yàlla na leen yàlla jàppale yàlla taxawu leen ba ñu am connexion yu ñu leen di